leen bëggee bu baax a baax te di leen jaajëfal yéen ñi topp ci Leewtoo TV dem ci yéen contentement toujours comme ni ñu koy defee actualité lamb la ñuy topp ginnaaw ba repos bi amee combat yi naroon am ci semaine bi ñu annulé ko dañoo togg kenn nga xam te ne ni du ko tudd ci lamb nga tudd ko ñu koy naatable turam di Aziz Aly Ndiaye agent ci Balla Gaye numéro 2 dañu koy nuyu baalu ko ak tabaski bi ñu jëm daal di ñëw waxtaan ak moom tuuti ci annulation yooyu Aziz maa ngi lay nuyu jërëjëf maa ngi lay nuyu di nuyu ñi nga xam ne yëpp ñu ngi seetaan Leewtoo TV di nuyu amateuru lamb yi di leen baal ak di leen baal wax ci tabaski bi bu baax a baax. ginnaaw bañ la nuyoo nga yëg annulation combat bi lan nga njëkk mën naa ni report sax comme la ñuy wax du annulation dañ ko reporté. Mhm. ultérieurement euh, comme ni ko Sénégal yëpp dégg rek peut-être que noonu lañ ko déggee mais amuñu ci benn problème mhm. parce que ni ñuy waxe rek de. devant l'impossible, nul n'est tenu. Mhm. On est obligé d'accompagner le pays, accompagner aussi les Sénégalais ci li nga xam ne nii tey moo wàcc ci Sénégal muy Covid 19. Mhm. on est obligé de ko jàppale askan bi xool li nga xam ne nii mooy mesure barrière yi xool li nga xam ne nii mooy protocole sanitaire bi nga xam ne ministre de la santé moom la teg sur la table ñu jëm ko respecté xam nañ ni làmb dafa ànd ak engouement populaire ànd ak mbooloo ànd ak lu nekk. day indi rassemblement day indi lu nekk ñoom suñu gisee nii c'est pas évident pour ñu organiser ci combat nous on fait que coopérer avec le promoteur loolu rek la mais amul problème boo man nag yàgg naa ci am ay doute pour wax dëgg rek pour dire vrai même avant Gaston di jël sax décision man bokk naa sax wax dëgg yàlla ci ñu ko proposé woon la veille ni ko situation bi nii mu demee nii tu peux donner le bon exemple bu la neexee sax tu peux reporter ñun amuñu ci benn problème man j'avais pris les devants xamoon naa ni du ñàkk ni dina am leneen luy xew lu dul tëgg làmb donc on était on était préparé en conséquence. Mm-hmm. ba bett ñu vraiment quoi. Mm-hmm. nga nekk agent bi nga xam ne mooy Balla Gaye numéro 2 ba su foree ci wéewu bëy sax Balla Gaye mu ngi doon dem entraînement ci la ko yëg ba nga ko yëgee lan moo lan lan nga ci gis yéen. waaw c'est vrai Gaston bi mu génnee ci rencontre bi mu amoon ak gouverneur ci la ma woo annoncé ma ni ma ah finalement il a décidé de reporter ni ko ñëpp defee ma ne ko non y a à notre niveau comme li ma ko waxoon rek amuñu ci souci amuñu ci problème ci laa woo Balla Gaye mu nekkoon en cours pour dem defi contact am ma ne ko tu peux continuer dem defi sa contact mais dis-toi que ni le combat est reporté su la neexee tam mën nga retourner ñëw on va discuter. Mhm. gisanteeguñu sax depuis report bi ba léegi on sait pas encore bi mais comme quotidien mbër mu bëre ba pare actuellement il est en de faire ses récupérations parce que depuis cinq mois mi ci benn préparation bu intense. def na trois mois au Sénégal deux mois à l'UNICEF de Paris c'est normal mu lever le pied un peu actuellement comme y a pas de combat day def en solo rek quoi non bien sûr Balla Gaye li des ci carrière am li ci ëpp solo lépp ci kàttanu yàlla INSEP la koy defee di préparer tous ces combats incha allah sans problème. fu mu ne nii champion bi ci la nekk pour supporter bi nga xam ne mi ngi ci jàmm gis naa ko daal mi ngi joué Lido gis naa ko sànq kër ga moog xale yi ñu ngi foofu di joué Lido amul problème. gis naa ko sax ci statut yi wala snap yi mais man maa ngi ko bàyyi suma kër maamel gisaguma ko ah depuis deux jours on s'est pas vu mais xam naa su ma jógee fii dinaa dem giseek moom waxtaan ak moom sans problème. ci loolu bu ñu waxee ci Aziz Aly Ndiaye borom Jador foo Jador toll. Jador mi ngi fi rek mi ngi sur le marché en train de fair son bonhomme de chemin ñu ñaanal ko xam ne rek Jador moom actuellement c'est un produit national et c'est un produit de cœur pour tous les quoi. Ah. ñu Jador bi mu ci jàppale ñëpp xeebul ku ndaw xeebul ku mag foo tourné yaa ngi gis Jador loolu lan la. Jador c'est un produit national un produit sénégalais mm-hmm. c'est normal que tout Sénégalais bu ko soxla rek su su fekkee ni war na présent mu présent à ses côtés. Mm-hmm. c'est naturel et Jador c'est un produit sénégalais du faveur du xaalis damay delloo comme nu ma ko mën a waxee rek retour à l'ascenseur. Mm-hmm. man j'étais promoteur. xam naa les difficultés xam naa li promoteur di daj et si j'ai un peu des moyens pour fair la communication wala pour faire du marketing bala moo koy dugal feneen ma dugal ko ci làmb ji loolu rek la du leneen. Aziz askan bee ma yónni nee nañ Chédor bi gis nañ huile bi ñëw pat bi ñëw ataaya bi ñëw dañoo bëgg mu gën a agrandir ngeen leen boisson Chédor ak lépp askan bi daal ñoo ma yónni fu mu ne nii ñoom ngay tontu. non y' a problème Chédor c' un produit national. parce que yi ñoo ko porté seen kër lépp luñ ci bëgg rek te muy alal dinañ ko def incha allah. kon pare nga pour indi leen loolu noonu yëpp. sans problème ñun on est en de faire notre bonhomme de chemin step by step. ndànk ndànk Balla Gaye bëre mooy métier lamb mooy métier su jëlul quatre combats d'affilée heure bu combat bi jeexee day bëggaat beneen combat. Mhm. à la place di wut par benn. si tu peux avoir en gros c'est plus simple non ñi mu jël. mooy ses potentiels adversaires. Mhm. Balla Gaye Balla a l'obligation de prendre sa revanche sur Bombardier. Il a l'obligation de prendre sa revanche sur Eumeu éclaircir victoire bi mu amoon ci ak euh, Gris Bordeaux et essayer aussi de donner la chance aux jeunes générations c'est logique c'est des adversaires très logiques mais c'est très normal xam nga tey ñun notre souhait c'est de battre tous nos quatre adversaires mhm. un vainqueur nag li jaadu mooy mu bëre un vainqueur. Mhm. non loolu suñu option la ñun. suñu cuisine interne la et je sais que ni tam à l'état actuel on peut plus dire de vainqueur ou vaincu nañu bàyyi ba bëre ñun ñëpp ba pare rek. on va dire vraiment décision bi ñu jël incha allah. Aziz mu génn ci promoteur dugg ci agent mbër yaa ngi ci biir làmbale la mooy différence bi ci ñaar yooyu. mën naa ni sax agent wu mbër sax moo gën a métti parce que dañ lay catégoriser déjà ni que da faral benn mbër c'est très normal man je un natif de Guédiawaye je suis à Guédiawaye fa laa jàngee fa defee sama cursus scolaire yëpp fa laa jànge liggéey ba yàlla dogal li muy dogal c'est normal doomu Guédiawaye buy compétir ci domaine d'activité bu mu mën a nekk su ma soxlaa à ses côtés ma soutenir ko lamb affaire quartier la affaire koñ la affaire la naan gën a jege gën a yey. c'est normal. ci noonu nag nga nekk promoteur nekk agent fu mu ne nii boo doon jox conseil je ne suis plus nga jógee promoteur dem agent boo doon jox euh, lancer appel promoteur yi nga xam ne ñàkk nañ seen i combat fu mu ne nii loo leen di wax. non actuellement moom tout le monde sait que c'est difficile gis nga le promoteur c'est le principal bailleur ils ont sorti beaucoup d'argent jox ko ay mbër mbër yi aussi itam xaalis boobu dafa am feneen fu muy dem on ce qu'on a dépensé sur le combat joxuñu ñu ko sax avance et le promoteur nous a donné l'intégralité de notre avance sur ce combat et on a dépensé plus que lim ñu jox kon lu mu métti métti ci promoteur bi ci ñun la gën a métti. Mhm. on a dépensé beaucoup d'argent mais on ne peut pas parler d'argent à la place où y a des morts où il y a des malades. Mm-hmm. c'est c'est même pas cohérent et c'est même pas respectueux. il a reçu de très bons cachets et c'est de très je dirais pas plus il a reçu d'excellents cachets pas plus il a reçu de très bons cachets bon man ce qu'on m'a interdit de faire mooy organiser de, de, des combats de lutte essayer de tirer des profits dans la lutte on m'a interdit d'organiser et de, de tirer des profits peut-être que loolu ak jàppale mbër du benn mhm. agent tu fais que dépenser il mhm. n'y a pas de profit mhm. hmm. dañ koy bëggee bu baax moom mais duñ ko bàyyi en tant que citoyen fu mu ne nii dëkk bi ku ne xam na li fi xew ban message ngay lancé axlu Sénégal yëpp non li may lancé axlu Sénégal yëpp mooy ñun ñëpp ñu conscient tey ku covidul am nga mbokk bu covid wala xarit bu covid wala frère wala sœur bu covid mm-hmm. ku ci amul décès am nga ci xarit bu décédé wala koo xam wala ku la jege sa existe et mi ngi def ay ravages ñun ñëpp nañu respecter les mesures barrières boole ci di ñaan yàlla yàlla musal ñu ci mais maladie bi mi ngi def ay ravage yàlla nañ ci yàlla musal mais c'est quelque lu dangereux la man xam naa ci dara ndax am naa ay xarit yu mu dal ay mbokk yu mu dal ay ñu mu jege ñu mu daal donc yàlla nañ ci yàlla musal ñun ñëpp ñu conscient xam ne daal mag moo mun a faj boppam quoi. ci xeexu mbas moomu Aziz ci yéen jàppale la nekk di ko jàppale. <laughs> ñun li ñu def yàlla nañu ko yàlla fay. amiin c'est l'essentiel. xam nga nit mënoo foo toog. di mm-hmm. def naa lii def naa lii def naa mm-hmm. on a fait des choses la ñu def yàlla nañu ko yàlla fay ñu bokk koog Sénégalais yi le plus important. maa ngi ñaan yàlla ñun li ñu def yàlla nañu ko yàlla boole fay rek. ndax di énumérer li ñu def actuellement nekkatul ci fi ñu toll nii. Mm-hmm. wax dëgg yàlla nekkatul teggin. Bombardier non ñu Balla Gaye moom muy bëre ñu koy sax tàmm nañ ko ci moom loolu garaawul. loolu y' a problème tàmm nañ ko quoi mais ñi bu dee turu nii ngay tudd gëm naa ni sax nit ñee koy tudd. mais mm-hmm. nekku ci. peut-être xam nga Balla gay moom. li muy wax lépp moom day show mais Balla gay nit doo doo tiit wala doo ragal koo daan. Mm-hmm. nii ne peut pas faire effet devant Balla Gaye donc euh, mu ànd ak moom ak mu ñàkk ànd ak moom man de Yékini moo ma ko wax ci làmmiñam ma dégg. mun ma yoonam nekkul ci combat bi c'est lui qui me l'a te nit la bu ma respecté boo xam li wax gëm naa ko. di ko bëggee bu baax a baax lan ngay wax supporteru Balla Gaye ak sénégalais yi ñu tàggatoo ci. ñu patienté ñaanal Sénégal actuellement loolu lañ gën a soxla supporters yëpp nañu respecté mesures barrières yi di ñaan yàlla aussi yàlla musal ñu ci mbas bi ñi ci ñàkk seen bakkan ñu ñaanal leen yàlla yërëm leen ñi mu daal ñu ñaanal leen ñu tane. ñu mu dalagul nag yàlla musal ñu ci incha allah. amiin jërë ngeen jëf. merci beaucoup merci kontaan nañ ko bu baax a baax. mu ngi noonu di ko bégee bu baax a baax moom Aziz Aly Diaye borom Jador gën ci xale gën ci mag nee naa leen gàmb complet la ñu indil. durin bu baax sans cholestérol ah tournesol gën ci ñëpp dañ ko consommé doomu réew moo ko def consommé local la leen bégee bu baax a baax waaye sama équipe bi bi laal Assane Walu Gueye dama koy bégee bu baax a baax kenn du moom moo maane sama chauffeur bi damay bég ci yow 100 pour cent assurance noonu laay def jotoon dig daje ëllëg ak beneen daanaan incha allah ci Leewtoo TV